sama gars yi waa bokk naa ma won leen tuuti ak waa Sénégal lan mooy développement xool leen lii yëpp ay camion la fii ci Angleterre waaye nag daanaka dafa mel ni bii dafa jóge Kaolack bii jóge Ziguinchor bii jóge Nangam bii jóge ñoom ñépp ci ay bërëb yu mel nii lañuy tase bërëb yu mel nii nag dafa bari léegi nag bu ñu yegsee gunóor yu ndaw yi gunóor yu ndaw yi gis ngeen gunóor yu ndaw yi ñoo leen di décharger buñ leen di décharger nag saa yu ñu jëlee paquet bi wala ñu jël lu ñu war a jël rek dafa am benn code barre boo xamante ne mooy wax ki koy dawal ne lii Kaolack la jëm moom mu yóbbu ko ci palaasu Kaolack camion yi day ñëw taxaw gunóor bi ñëw di décharger bu gunóor bi di décharger borom gunóor gi ki koy dawal mom li wax ni li wax ni e, paquet bi muy jël ni caisse bu muy jël ni Casamance la jëm ordinateur bi mu ngi ci bir ci mu ngi ci bir gunor gi tout est informatisé motax yow léegi bo xamut da ngay jaxlé waw ñi naka lañuy xamé ni li Saint-Louis la jëm li Kaolack la jëm li Casamance la jëm li caisse la jëm waw ci biti bo xolé bu baax ci fond ba di nga gis yenen camion ñom ñoo ngay charger lay jëm Casamance ñi di charger lay jëm Kaolack ñi di charger lay jëm Tambacounda ñi mi fii moom ñii dañuy décharger bu dugg ci fi rek décharger la li nak si lii activité bi nak 24 heures la sur 24 ku liggéey 8 heures nga tek dem sa yoon sa morom ñew camion yi tamit nonu du taxaw li mo tuddu développement li lañuy ñu yéene réew mi réew ma suñu réew mi lañ ko yéene ay lek ay boisson ay caisse ay ay fauteuil façon bu nek lu ne fi lay jaar ci ay bërëb yu melni ni ñu yeggali ko wat ko ci yeneen bërëb ni rek ni rek ni rek mën nga yóbbu sax ay neew te yow do yëg ni li ngay yóbbu ci ginnaaw ay neew la yow da ngay dem rek ñom buñu eggé tamit buñu décharger ñom duñu xam sax ni li lan la code barre bi rek mo koy wax li ngay jël place nangam nga koy tek. place nangam am na beneen camion bu ko fay xaar da koy yóbbu moom it camion bi xëy na aéroport la jëm xëy na fan la jëm kenn xamut tout est informatisé lépp luy nu mu yëngatoo ordinateur bi moo la koy wax fan ngay jëm fan nga koy teg fan la jëm waaw tout est gisoo ordinateur baa ngi nii ci biir waaj gis ngeen gis ngeen ma naa filmer tuuti rek ngeen partagé waa Sénégal gis lii la ñu yéene réew mi c'est possible mën nañ ko def. yor nañ ko am nañu alal bi te am nañu li nga xamante ne mooy suuf si réew mi naat na mën nañ ko def lii lii 24 heures ci 24 camion bu dem moromam ñëw taxaw du guddi du bërsëg dañuy liggéey 24 sur 24 ma leen di gërëm di leen sant rek bëggoon a yónni lii tuuti rek pour nit ñi mën ko gis quoi li xew ci àdduna bi.